أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turut borom bi tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi fas yéene jàppalante ak yéen comme nun koy baaxoo di def ci waxtu wu nekk tey incha allah tomb boobu ñu jëloon muy àqi jabar ci kaw borom këram ginnaaw ba ñu jeexalee àqu jëkkër ci jabaram xam ngeen ne ñaar ñooñu muy diggante jëkkër ak jabar diggante borom kër ak soxnaam ñoom ñaar yàlla moo leen boole ci buumu sëy borom baa ngi wax ci quran wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha borom bi ne bokk na ci kéemtaan yi mu def kéemtaan mooy loo xam ne bu ko nit gisee waaru bu ko dégloo dégg bu ko xoolee jële ci kéemtaan jële ci lu ko yéem loolu mooy kéemtaan borom bi ne loolu nag bokk na ci sama kéemtaan man yàlla mu daal di tàggatal daal di bind daal di sàkk soxna génne ko ci góor boroom xam-xam yi nee nañ borom bi tabaraka wa taala dafa bind aadama bisu àjjuma mu dugal ko aljanna bisu àjjuma boobu mu bàyyi ko muy nelaw yàlla xar faaru gauche bi daa di ci génnee soxnaam bu tudd Hawa waaye dafa am benn philosophie boo xam ne bëgg naa ñu dégg ko bu baax a baax a baax a baax ci bind bi yàlla bind Hawa ci faaru maam Aadama boroom xam-xam yi nee nañ li tax yàlla bind jigéen ci faaru góor mbir yu bari ñoo ci nekk nee nañ yàlla romb na fi ay tànk bindu ci góor bindu ci jigéen ndax yàlla bu bindoon xawaa ci tànki góor ci suufu tànk yi kon jigéen day nekk jaamu góor di ko jaamu waaye sunu boroom tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala bind jigéen ci faar ñu ne ay mbir yu bare ci nekk yàlla romb na fi tànk bindu ci jigéen kon day nekk jaamam yàlla romb fi bopp bindu ci jigéen kon jigéen day nekk sangu góor nekk supérieur am nekk ci kawam toog ci bopp bi fecc di def lu ko neex waaye borom bi tabaraka wa taala bind na jigéen ci faar góor faar fan la nekk ci sa wet ci sa pegg ci sa côté kon yàlla dafa bëgg jigéen nekk ci côté góor moo tax mu ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan beneen bi gën a rëy yàlla nee na bokk na ci sama kéemtaan yi ma sàkkal leen seen soxna génne ko ci yéen mu bokk ci yéen kon aaya bi buñ koy jàngataat danañ mën a laaj ci aaya bi góor ak jigéen lan lañ bokk soxna ak borom këram lan lañ bokk jëkkër ak jabar lan lañ bokk ndax yàlla nee na soxna si ci yow laa ko génne min anfusikum ci yow laa ko génne ci yow la bokk kon jigéen bi benn daggit la benn suux la bu yàlla génne ci yow léegi nag nga dégg ci est-ce que yow di nga war ngaa lor sa bopp est-ce que yow di nga toroxal sa bopp est-ce que yow di nga manqueel sa bopp est-ce que yow di nga doyadil sa bopp bu la yàlla ne kii nga nekkal kat ci yow laa ko sàkke daggitu yàpp la bu génne ci yow aw suux la aw res la kon est-ce que yow ku góor war ngaa toroxal sa soxna est-ce que war nga ko doyadil est-ce que war nga ko manquer respect est-ce que war nga ko soofal tontu bi mooy déedéet parce que yow loo ko def sa bopp te yàlla nee na ndaw si sa bopp la min anfusikum yàlla nee na maa leen defaral ay soxna jële ko ci seen bopp dafa mel ne dañoo laaj yàlla benn laaj yow yàlla lu tax nga sàkk ndaw si mu ne li taskunu ilayha ngir yéen góor ñi ngeen mën a am dal ci soxna yi waaye mu ne wa jaala baynakum mawadda wa raxma mawaddatan wa raxma yàlla nee na ma def ci seen diggante mbëggeel ak cofeel mbëggeel ak cofeel bu deñee ci diggante góor ak jigéen ñaari way dencante dara amatu fa sunu borom subhaanahu wa taala sàkk jigéen mu war a nekk ci wetu góor di ko dalal di ko jàppale moo tax jigéen su matee soxna dëgg day nekk yaay nekk maam nekk bàjjan nekk tante nekk sœur soxna nekkul rek compagnon boo xam ne da ngay ànd ak moom sa jabar la nangam na déedéet su xamee dëgg mission day nekk lii lépp ma wax waaye mbokk yi góor dëgg tamit ki tax ñu naan góor bu dégg mission xam li tax yàlla bind ko kon dégg aaya bi yàlla naan arrijaalu qawwaamun ala nisa góor ñi ñoo war a jiite jigéen ñi jàpp ci seeni loxo yonent bi nee na yéen góor ñi maa ngi leen di dénk jigéen ñi ndax jigéen ñi ay butéel lañ ay verre lañ te verre dafa gaaw a toj kon maa ngi leen di dénk soxna yi kon jigéen ñi ay ndénkaane lañ yu yonent bi dénk góor ñi mbir nag buñ la buñ la ko dénkee war nga cee wone fulla ak fayda sàmm lañ la dénk beneen bi mooy soxna si biñ la koy jox alquran moo ne wa axazna minkum mithaqan ghaliza soxna yi kat jël nañ ci yéen benn pacte benn signature boo xam ne seen diggante la yéen ak ñoom ngeen siñante ko mooy lan yow laa bëgg àndal sama dund mu ne la man tamit yow laa bëgg àndal sama dund li nit ñi bari bari bari bàyyi naa fi ñëpp yow laa bëgg loolu su la ko jigéen waxee deselatu la dara ci àdduna noon na xooli keneen waaye mu romb ñëpp ñëw ci yow kon yow war ngaa def war ngaa taxaw wane fulla ak fayda ak ngor ak jom booy jàppale sa soxna buñ ñëwee ci àq yi nga xam ne góor ñi ñoo ko war a defal seeni soxna ñoo ko war a taxawe ndax ñooñu góor ñooñu mbir yi ay àq la yu tegu seen kaw yu ñu war a sàmm ndax yàlla subhaanahu wa taala da leen koy laaj ëllëg yowmal qiyaama soo déggee àq mooy loo xam ne dañ la koy laaj ëllëg kan moo la koy laaj yàlla kon loolu war nga koo xam war nga cee taxaw bu dee loo war a def nga def ko bu dee loo war a matal nga matal ko bu dee loo war a joxe nga joxe ko lum ci mën a doon boo xamul àq yi doo ko mën a respecté kon góor gu gëm yàlla gu bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam day rey yonent bi ci ni mu nekke woon ak ay soxnaam ndax yonent bi mooy sunu royukaay moom la yàlla teg sunu kanam nenu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana dëgg-dëgg bu dee royukaay bu rafet ngeen di ut muhammad a ngi nii yàlla defar ko baaxal ko sunu boroom defar ko baaxal ko teg ko ci sunu kanam pour ñu mën koo toppandoo ci lépp nag war kaa mën a roy ci lépp amul lu ndaw wala lu mag lu dul ne yonent bi royukaay la ca loolu sallallahu alayhi wa sallam bu dee ñuy nekkeeg soxna royukaay la ca bu dee nu ñuy nekkeeg doom royukaay la ca bu dee nu ñuy nekkeeg dëkkandoo royukaay la ca bu dee nu ñuy nekkeeg nit ak nit nu ñuy nekkee yonent bi royukaay la ca loolu wata yàlla teg ko sunu kanam ne toppandoo leen ko xool leen nu mu doon defee ngeen defee noonu moom yonent bi nag dundam yépp ku ko jàng di nga gis ni mu yore woon soxna yi ni mu leen yërëme woon ak ni mu taxawe woon ci seeni mbir lu ndaw ak lu mag guddi ak bëccëg yonent bi taxaw ci jàppale jigéen ñi gis ngeen soxna Khadija li ko dugal ci yonent bi mooy yonent bi jàppale bu mu ko doon jàppale ci commerce am Khadija gis ñi fi jaar ñëpp ci liggéeyandoo ak moom kenn melu ci ne kii mu ne kon man kii doy na ma li ma ñàkk kon ndeke di ko wër mi ngi ci kii kon kii doy na ma lépp li nit ñi daan miin mooy góor a daan yëkkati xaalis di takk tey jigéen mooy jël xaalis di takk parce que dafa gis lu ko ko jaral kon ndeke góor war naa wane mat wane ay critère ay jikko ay melokaan yu ko soxnaam di nawe yu ko mbokki soxnaam yu ko waa këram yu ko dëkkandoom yu ko mbokk yi yu ko nit ñi di nawe loolu mooy nit lislaam du nangu mukk kuy toroxal jigéen yonent bi nee na kenn du teral jigéen lu dul ab jullit kenn du leen toral toroxal loo ko yàlla nar a toroxal ëllëg kon maa ngi soññ doomu ndey yu góor yi ñu taxawaat bu baax a baax xoolaat aaya alquraan yi yàlla wax ne wa aasiruhunna bil maaruf wa aasiruhunna bil maaruf yàlla nee na ee yéen góor ñi dundundoo leen ak jigéen ñi ci njekk baatu njekk maa ngi sàkku kenn ku nekk ci ñun mu jëm ko firi njekk mooy lan waasiruhunna bil maaruf dundundoo leen ak jigéen ñi ak soxna yi ci njekk yàlla nee na bu ngeen nekkee na rafet su ngeen demee ba mënatul nekk tamit na rafet fa imsaakum bi maaruf téye leen mu rafet boo demee ba mënatoo téye yàlla mu ne na nga wàcc wàcc bu rafet gis nga lislaam wallahi sunu diina ji buñ ko déggoon jàng ko xam ko kon danañ dund ajana ñaari yoon danañ dund ajana ci kaw suuf ñu dund ñu dund aljanna ëllëg ji ñu yàlla dencal muy firdaws ndax alquran dafa ñëw di nu won yoon waruñu tarxiis waruñu jàdd waruñu wax lu ñaaw waruñu def lu bon surtout sunuy digganteeg ñi ñu nekkal te ñu leen di tuddee ay soxna alquran mbiru jigéen bàyyiwu ko ci loxo kenn lépp la leeral fa mu juddoo ba keroog ñu koy dugal ci biir bàmmeel alquran bàyyiwul jigéen borom bi tabaraka wa taala dafa bëgg jigéen ñi teral leen ba ñu tuddee leen aw saar tudde ko suuratu nisa loolu amul ci wàllu góor ñi saar buñ fay tuddee suratu rijaal loolu amu fa bal sax yàlla tagg na ay jigéen ci quraan pour ay jigéen roy leen kon lii mooy dars bu njëkk bi ci taxawaay ak warugaru góor jëm ci soxnaam dina leen ko toppal tomb par tomb bi iznillahi tabaraka wa taala ba lu mu néew néew ñu jéem cee ut fukki tomb yoo xam ne duñ ko yàkkamti danañ ko càmbar ak di ko leeral benn benn muy ndénkaane gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dénk góor ñi dénk borom kër yi ci seen digganteeg seeni soxna yi ñu nekkal mbokk yi kon incha allah ñu bàyyi leen li des ci minute yi ñu def ko ay question ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.